dañuy dajale mbégte lay doon ak bànneex comme ni ñu koy defee fépp foo ne xew-xew am bi xool la nga xamante ne moo fa xew ñu taxaw nag mooy tëngéej ceew leen dégg ngeen ay bés yi nga xamante ne moom moo génn gannaaw tabaski bi ak léegi ñi nga xamante ne seen doom yi dañu demoon si mbëkk mi xale yi comme ni ñu koy faral di waxee barça wala barsaq yàlla def nag am si juróom benn doom yoo xamante ne ñu ngi dëkk fii si tëngéej ñu des si géej gi mu nekk loo xamante ne lu métti lool lool lool tëngéej yi yëpp jug di jooy seen doom waaye rawatina fi nga xamante mooy ceew leen yi nga xamante ne fi la ñu nekk mu nekk ceew leen digg ceew leen but lépp loo xamante ne ni xew na fi si Thiawlène moo tax tey émission xew-xew ànd ak équipe am ñëw fi ñu fas yéene ànd ak koo xamante ne ni doomu gox la muy Daouda Ndoye moom mi nga xamante ne moom lañ fi fekk si tey mu fas yéene ànd ak ñun wan ñu li nga xamante ne moo xew fi si Tëngéej gannaaw ba ñu ñàkkee seen juróom benn doom yooyu nga xamante ne ñoom ñëpp dañoo des si gaal gi ñu dugg si kër gu si nekk nag massaw leen waaye xool nan la ñu dundee xew-xew bi nga xam ne moom moo dal seen kaw Daouda Ndoye mu ngi ni tey moom mooy sama guide fi nga xamante ne moom mooy Tëngéej Thiawlène bu ko defee ñu fas yéene ànd ak moom dafa émission xew-xew bi Daouda maa ngi lay nuyu maa ngi leen di fay di leen euh, gërëm waa 7TV si dem ñëw massewul ñu dama naan sax pour ñëw boo bokkaax ñun tiis wi ñu ànd aussi ñu présenté leen aussi famille yi euh, ngeen am ay information par rapport ak ñoom boo teyee tamit information yoo xam ne war nañ ko jàllale aussi ñu profité aussi de cette occasion pour euh, jàllale ko ñëpp dégg ko parce que xew-xew bi mu xewee euh, tiis la woo xam ne bi mu dalee ci askan wi nekk na lu miti lu miti lu miti parce que boo yeewoo suba rek ñu ne la si sa gox am na juróom-benn yu si daanu loolu day métti léegi nag Thiawlène euh, boo ko déggee ñetti quartier ñoo ko ñoo ko sos muy Thiawlène Pouyen Thiawlène digg fii ñu taxaw Thiawlène Pouyen yàlla def ne euh, boo boolee ñaari Thiawlène yi loolu mooy ASC Thiawlène léegi nag fi ñu taxaw nii moom la euh, kërin Babacar Thiam kenn koo xam ne dafa ñàkk bakkanam si si gaal googu ñoo gën ko xam si turu Mbayaa ndax xanaa Mbayaa nag kenn dootu ko présenté si gox bi kenn du ko présenté ti tamit Tëngéej ndaxte Mbayaa mooy góolu ASC waaw moom fii mooy seen seen kër léegi nag moom la ñuy commencé émission bi après ñu dem si yeneen kër yi moom yaayam mu ngi si biir ñu gën ko xam faatu jeng et en même temps yaayam mooy bàjjenu gox bi Baba euh, di nga ko waxee noonu daaw da mu nekk loo xam loolu la ñoom juróom benn yi si ñàkk seen bakkan yëpp gannaaw Babacar mi nga wax léegi Mbayaa ñi si des na lañ tudd euh, am nañ si ku tudd Papa Gana Gueye moo dëkk Cuufeen euh, après dinañ fa dem am na si koo xam ne suñu frère la maga rakaam suñu xarit magam suñu xarit intime la muy mbay Gueye moom tamit frère ñu koy wax Youssou Gueye mu ngi si depuis lors di sonna pour ñu am information yi war par rapport ak euh, mbir mi kooku mooy mbay Gueye après boo demee but cëw leen but loolu ñett ñi ma la wax ñooñu cëw leen euh, but la cëw leen digg la léegi cëw leen but nag euh, boo fa demee am nañ kuñ naan Cheikh Cissé am fa kuñ naan Moustapha Cissé am fa koo xam ne ñu ngi koy woowee ci quartier bi ñu ngi ko gën a xam Lamine Diop waaye mu ngi tudd Lamine Fall waaw muy six corps yoo xam ne boo xoolee but dafa am ñett digg am ñett moom lañ ko séddoo dégg ngeen ko noonu mbokk téléspectateurs yi mu nekk loo xam ne lu xew fii nga xamante ne mooy cawleen ndax seen i doom dañoo takkoon dugg si mbëkk mi yàlla def nag ñoom juróom benn ñoo ñëpp ñàkk seen bakkan nekk lu metti kon Cheikh ànd ko defee ànd ak suñu gidd tey ndooy mii nga xamante ne sama mbokkum lébu la ñu daal di fas yéene dugg xuus euh, biir cawleen ñu leen massaw li nga xam ne bi kenn si ñoom xamante woon nga nag ñoom waaw ñu ñoo ànd guddee bëccëg suba ngoon toujours ñooy ànd moom noo yegee xew-xew bi dal seen kaw xew-xew bi moom metti na suñu kaw trop trop trop metti na trop sax foog na tam moom weesu na fa quoi métti nañu métti na Tëngéej métti na tamit quartier bi Thiawlène waaw métti na tamit jeunesse Thiawlène métti na mag métti na ndaw. c'est la fois ay ndaw jóge fi di dem si géej bi. waaw ñun moom ñu ngi door a am torof torof yi si géej ak ah, métti métti ñu ngi koy door a dund sax si géej. noo ko yëgee yow en tant que jeune. waaw en tant que jeune moom métti na trop te ñun moom dañu frappé ñun surtout ñun ñi àndax moom bu dee bëccëg subaax ngoon affaire bi dañu frappé parce que euh, Babacar Thiam. moom la ñu àndal guddee bëccëg baax nga waaw lu ñuy def ñoo koy defandoo. ñu leen masaw waaw affaire moom metti na moom te xam nga foo ko natta moom weesu na ko si jeunesse bi xam nga dëkk bi ñëpp. na trop trop sax trop ñu ngi nii nag fi nga xamante ne mooy kër ñoom daaw mooy kër ñoom Babacar Thiam di Mbaye nekkoon góol bi nga xamante ne moo yoroon ASC bi ñu ngi toog nag ak waaye juróom mu jigéen yaay booy ñu ngi lay ñoo ngi lay fay. lay masaw li ñoo ngi koy nangu. yow yaayu wajuru Babacar. waaw man maa yaayu Babacar Thiam. xew-xew bi daal yëg naa ko ak mbetteel yëg naa ko tardivement ndax bokk naa si ñi ko mujjee yëg waaw nit ñi yëg nañ ko di ma xool di ma yërëm te kenn ñemuñu ñëw annoncé ma ko mais daal. samedi tardivement si lañ daal xam ne lii dëgg dëgg dëgg c'est avéré Mbaye bokk na si ñi décédé waaw. ñoom kañ lañu demoon. ñoom daal bi ñu fi jóge altine la ñetti fan si weeru juillet. Mhm. Mhm. moom yëgoon nga ne dangay dem wala yëgoo woon ne day dem. déet yëguma ko woon mais bi mu demee ba mu am ñaari fan laa am écho. ne Mbayaa dem na ci mbëkk mi. Mhm. ñaata at la amoon moom. entre vingt deux ans vingt trois ans. na am soxna amul jabar amul doom bàyyi fi dara bàyyi fi dara luñ koy xoole ma nekkoon sama taaw xanaa ay jëf yu baax moom la fi bàyyi. Mhm. mu ñu gis ne xale yi peut-être jom gi nekk ci ñoom mooy waral tax ñu gis seen waajur di dund yenn yi ñu war ñuy jël mbëkk mi di dem ngeen am yaakaar peut-être bu demee situation changé yàlla def li gën en tant que waajur ban yëg-yëg nga am. xanaa rek tiis yëg-yëg desolation billaay espoir bu yàqu ay rêve yu brisé ci moom moomu ak ci ñun ñim fi bàyyi yooyu yëpp lañ yëg. mettit billaahi te xam nga ne lii ku ko xamoon woon na yéene it def lool ci man waajuram ak ci ay rakkaam parce que fu mu toll danaan fëgg dënnaam di ko wax waaw waaye rek ñu jàpp ne toujours daf daan wax ne yow yaay yow dama la war a teral dañ ko daan échanger nii ñi kaf di mu naan dama lay teral ba àddina yëpp xam ne teral naa la sama rakk bu ndaw bii nag su may taxaw di ko ubbil compte compte boppam mu géré ko toujours loolu daf ko daan wax mu tax su ma xoolee xale bi tuuti dama koy xaw a yërëm dama koy xaw yërëm tuuti mu nekk lu metti lool ndax ku am sa taaw ba mu am 22 ans jàpp 23 ans yaa ngi yaakaar ci moom leneen mu nekkoon góol ASC bi nga xam ne fi lañ nekkoon. Mhm. waaw waaw lu metti lool nag metti na mais ñu ànd si ak daal parce que metti na torop man su ma doon reyee sax ku ma xool xam ne maa ngi ak naxar mais naxar bi nag yàlla daf ko oyofal si man parce que kenn ma ak sama naxar mag ñi ndaw ñi xale yu tuuti yi sax dañ ma jooyle moo tax man sama rongoñ ba tey tuuruwul ASC bi nag waxaalewu ma leen moromam yi mu daan àndal waxaalew ma leen dëkk bi yëpp mais bu doon cëw leen rek wala tëngéej sax ñu ne waaw waaye demale ne àddina wërngër këpp ñoo ma jooyle mbayaa loolu rekk moo tax mu xaw a dal si man oyof wàññi na xar bi ku am ku sañoon ku am sa taaw dangay ngay bëgg muy dund di la teral ngay gis walla it ngay bëgg ëllëg ngay fa wax say sët yoo xam ne ci moom moomu la jóge te loolu yëpp jotul nekk waaye rek ñu jàpp ne loolu yàlla rek moo ko sañ ndax yàlla moo ma joxoon yàlla moo ko jëlaat jigéen bu dégg ndokk sa bakken bés dana ñëw nga dégg si gindigaale buñ ci bàyyee xel rek bu ñëwee daañ ci ànd ak dal loolu rek moo tax ma ànd ci ak dal waaw lan nga mujjee fàttaliku sa diggante ak moom lan ngeen mujjee wax altine boobu bi 5 di jot mbayaa ngi tëdd ci kaw lalu maamam yor portable di zappe xaw ma da doon wax téléphone sol benn pile bu jaune ak benn pantalon bu rafet dafa setoon nag bëgg boppam dafa set buy dox du bëgg tànk bi laal suuf foo ko fekk mu ngi jël serviette teg ci fii fu mu ñaxee fomp ko bariwul lu muy werante du wax ci kaw du histoire kenn du ko yedd wallaay ku ma noppal ku dalaloon sama xel man génnuma benn yoon ba dégg boucan may sóor ne mbayaa mu ngi si jamais musul nekk musul ne ba mu koy mujjee gis mu tëdd ci kaw lalu maamam ñu waxtaan mu ne mam yaay nag ma ñaanal <laughs> ma di ko ree te mbayaa yow duma la ñaanal yow danga nga dalal sama xel yow ma ne ko yow sant yàlla rek yow danga bari bëri caaxaan ñuy kaf noonu di ree dama nekk yaayam mais dafa mel ne mag laa ci moom parce que magantewuñu ñu nekk ay complice di waxtaane lu ne man sax ku ma ne woon bu mbayaa demee wan ma ginnaaw dinaa ci am dal bu mel nii dina ma jaaxal loolu moom maa ngi sant yàlla bu baax. voilà daaw def fi ñu taxaw ni mooy fan. waaw fii mooy cuufeen gi ma la doon wax fii mooy kërin Papa Gana Gueye Euh, fa lañu war a dugg nii moom it daa ñàkk bakkanam si gaal gi si juróom benn yi ñuy wax si cëw leen moom si la bokk waaw kon ñu daal di dem waaw waaw ñu duggaat ayca Cheikh ñu daal di topp Daouda ba tey voilà mbokki téléspectateurs yi ñu ngi nii ba tey ñu ngi biir Thiawlène ñu ngi fii nga xamante ne mooy que ñoom gànn moom mi nga xamante ne tam kenn la si ndaw yi ñàkk bakkanam ñu ngi toog nag ak ndijaayam ndijaay ah, maa ngi lay fay ñu ngi leen massaw li ñu waaye ñu du leen ko massaw yéen it sant yàlla sa jarbaat ñàkk bakkanam si gaal gi demoon nan nga ko yëgee waaw muy drame boo xam ne ñun ñëpp la bett dëkk bi yëpp la bett muy ki ko jur ak ki ko jurul ñëpp la bett muy yaayam ak ñun ñi nga xam ne ay ndijaayam lañu ndax mbir mi kat ni mu wàccee suñu kaw eh, wax fa dëgg yàlla metti na metti boo xam ne foo ko natta rek weesu na ko waaye dañu koy dolli sant yàlla rek xam ne yàlla suñu boroom moo wax ne xëj na foofu la lay des parce que nit nekk na fii ci dëkk bi euh, yaakaar fi taxaw fi di liggéey di def di jàppale ay waajuram bés ñëw mu génn dem beneen dëkk ndogal ñëw fa mu ñàkk fa bakkinam kon Gana dafa nekkoon xale boo xam ne wax fa dëgg yàlla xale bu loon taxawu yaayam la loon jàppale yaayam ak papam ba ci ñun ñii di ay ndijaayam ak ay dëkkandoom ay maamam xale la boo xam ne it wax fa dëgg yàlla ci wàllu liggéey bari na liggéey yoo xam ne ni gànn daana ci yëngu waaye liggéey yooyu muy yëngu lépp lépp lu mu ci daan yëngu it pour dimbali juróom rek ba tax na tey bii liy amee ah moom it mu gis ko ah xam nga rek xale bëgg a tekki rek bëgg a jàppale waajuram gis ay moroomam ak dëkk bii ni mu mettee te fu ne dugg na fa di liggéey ah, gaal ñëw mu dugg ci gaal gi ah, demoon di wuti ji yàlla suñu boroom ñëw ax ay mbiram ñu dooli nangu dogal boobu xam ne ay jullit lañu ndax lii eh, jëkkewul ci ñun bu jëwul ci ñunit waaye dañu koy sant yàlla rek. gànna moom ñaata at la moom. gànna gànn ñaar fukki at la am mooy taawu suma sœur bi mam Fatou Ciss donc jotul am soxna jotul am. waaw jotul am soxna waaye ci ay projet am ci ay projet am euh, xam naa ne lu mu loon mébét la pour bëgg soxna pour jaw mu jàppale yaayam loolu lu amoon la. Mhm. yow noo xew-xew bi. waaw xew-xew bi ni ñu ko yëgee. mooy que ne ñun comme ci dëkk bi lañu dëkk te ñun dañu nekk ci kilifa yi nga xam ne ñoo nekk fii ci dëkk bi gaa ay ndaw lañu waaye am na ndombal tànk yoo xam ne nii yàlla suñu borom sedd nañu ko fii ci quartier bi parce que man mii di wax ak yéen ci wàllu collectif lébu ci saltige yi ak laman yi jaraaf yi man lañu fal laman bu tëngéej yàlla def ma dëkk fii ceew leen nekk fi ak samay naataango Eh, jaraaf yi saltige yi chef de penc yi yëpp am nañu ko fii bi ñu yëgee drame bi ah xale yi comme ay moroom lañu daanako ci ñoom la jëkk a méttee sax ñoom ñoo ko jëkk a bi ñu ko yëgee commencé dëkk bi yëpp jaxasoo mais finalement bi ñu toogee xam nga information yi fu nekk lay jógee ak portable yi fu nekk lay jógee whatsapp yi lu nekk ngay dégg waaye li ci am solo mooy que ne informa information principal bi bi ñu ñëwee ñu wax ñu si la ci suñu doom ji bokk mu doon loo xam ne bett nañu metti na woon trop si ñun bi ñu ko yëgee metti na woon trop yaayam gi ci ginnaaw toog mam fat sis wax fa dëgg yàlla ak ay rakaam ak ay dëkkandoom ak tàntaam yi mu nekkal ci kër gi wax fa dëgg yàlla ñun ñëpp ñoo mettitu drame bi ak xale yi nekk ci dëkk bi parce que Gana dafa nekkoon xale boo xam ne Euh, dafa maasi ak xale yi euh, yàlla dimbali ko woon mu yoroon benn jakarta sax euh, boo xam ne moo ko moomal boppam utoon beneen jakarta tamit joxaat ko beneen xaritam mu du ci suturlu waaw xam nga ku mel noonu su lu mel nii dalee ci kawam ah dafay metti dafay metti waaw soutien de famille la woon soutien de famille la woon bu baax et puis ak xaritam yi nga xam ne ñu ngi nekkoon di liggéey ci wàllu parce que moom tamit daf loon def suudar def na suudar def na soudeur doon na dem ci chantier yi di liggéey doon na def maçon doon na def même carreleur daf ko loon daf loon dem mais drame bi bi muy mujjee am ni mu ngi ko fekk booba reyante na ba jënd ñaari jakartaam di dawal benn bi jël benn bi ñu joxe ko ñu di ko dawal waaye lépp lu mu ci am da ko daan indi fii di to waxtaan ak yaayam waaw di ko jàppale ay waajuram ak ñun ñi di ay ndijaayam nekk ci kër gi dégg ngeen ko noonu xalam demoon bay neex bu mu ko dog ndax xam nga ne ku dem ba réaliser loolu yëpp da nga xool lu gën a ñoŋ rek yaay booy ñu ngi lay masaw massa sa wàll man daal mënumaa wax daal mënumaa nekkoon sa taaw nga xëy xëy euh, mu ñàkk bakkanam nan nga ko yëgee en tant que waajur mi su ko mënumaa maa ngi jéggalu jéggal leen ma rek léegi lan nga koy ñaanal fa mu jëm gënal ko fi mu jógee. lu ci mënti am rek dafa doon loo xam ne lu métti loolu la ndax xale boo xamante ne vingt ans lay am di tegal di ñaanoon yàlla dimbali njabootam yàlla ñëw def li gën ñu ngi leen massaw yéen ñëpp di jaay bu baax a baax a baax. jërëjëf waaw jërëjëf ñu ngi leen di sant yéen tamit parce que li nga xam ne nii moom la am ci yéen mooy fii nga xam ne suñu loxo jotew fa wala que suñu kàddu jotew fa yéen médias yi man ngeen ñu ko yeggal foofu. mais lii nga xam ne nii euh, lii nga xam ne nii ñun bëgg nañu ko lii nga xam ne dëkk bi yëpp moom la ñuy demander actuellement mooy ñu ngi demander état bu Sénégal en commençant ci suñuy maire ñi nga xam ne ñun ñoom ñun la ñu fi nekkal mooy suñu doom yi nga xam ne nii des nañu te nekk Maroc ñoom ñu dimbali ñu lijjantil ñu suñu njaboot yooyu indil leen ñu ñibbisi seeni mbokk parce que ñun déjà xamuñu ci yan condition la ñu nekkee foofu te wax fa dëgg yàlla dëkkab jàmbur baa fa nekkee feebar ah dala métti ba amulee kala taxawu dala métti te léeg-léeg xale yi woote naan ñu ngi ci jàmm ñu ngi ci jàmm kenn mën na nekk ci jàmm mais ñeneen ñi mën nañaa bañ a nekk si jàmm bon lii nga xam ne ñu ngi koy proposé population leen yëpp ñu ngi koy proposé di ko ñaan état bi di ko ñaan municipalité bi parce que ñoom fa ñu fa seen loxo jote ñun suñu loxo jotewul foofu liñ leen di ñaan mooy ñu dimbali ñu dem jëlil ñu suñu doom yooyu des foofu indi leen su si seeni biir biiri mbokk ñun lépp lu ñu ci man def ko jëm mën a toppatoo suñu njaboot loolu daal lañ leen di ñaan di ko ñaan état bi yëpp di ko ñaan municipalité bi au niveau di département de Rufisque ñu jàppale ñu ci loolu parce que loolu daal wax fa dëgg yàlla euh, dëkk bi demandé nañu loolu bu weesoo loolu it ñoom municipalité bi ñu ngi rafet seen geste yi ñu def ci dëkk bi parce que bii drame bi amee ñoom ñëpp kenn ku si nekk ñëw na massawu ñi nga xam ne ni ñàkk nañu seen njaboot ñëw nañ fa it indi fa seen i ñaar dërëm ak seen juróomi dërëm loolu it ñu di leen ko sante waaye lii ñu gën a bëgg li ñu gën a soxla mu nekk suñu suusi principal actuellement mooy ñu xool nan la ñuy organiser ba suñu njaboot yooyu des foofu ñu dem jëli leen indi leen fii ci dëkk bi loolu daal lañuy ñaan di rafetlu ñëw bi doolu it di leen sant di leen gërëm. fii mooy Ngéyeen euh, mooy kërin Mbaye Gueye moom it kenn la koo xam ne daal ñàkk bakkanam si si gaal gi waaw fii. ayca Cheikh dégg nga ko noonu ñu ngi ngëyeen que ñoom Mbaye euh, ñu ngi maa ngi leen di fay. waaw ñu ñëw fii que ñoom fekk la fi yow lan nga si. waaw Mbaye Gueye suma rakk la suma rakk ju baax. ñu ngi lay nuyu kon bu baax a baax noo yëgee xew-xew bi dal si si seen kaw. waaw xew-xew moom bi ma ko yëgee tiis na ma lool mais gëmuma ko parce que Mbaye Gueye bi mu jógee Maroc léegi ak Tabaski trois jours la. mu ànd ak soxnaam ñibbise ak benn doomam yàlla dogal nu tëmaski ba pare fi la nekkoon di kaf di ree si tëmaski ji muy dugg ak génne di jënd boisson yëpp ba si boppi xar mu jël ko lakk ka mën a kaw kaw kawana nga rek tegal ne ne boppi xar kenn du jël di ko lakk nu waxtaan kaf ree ba si ngoon gi ñu teg deux jours le premier le deux ma laaj ci ana mbéy gay dem si paa bi nag ana mbéy mu ne ma mbéy de na may gëstu ñu ne dem na si gaal gi ma ne ko gaal. donc moom la ñu vivre. nekkoon waaw moo soxnaam ak benn doom yàlla may naka benn banta mu tudd ko paa bu saaxoo quoi waaw mbéy xale bu jullite bu yaru du xool nit du siggi xool nit. léegi kon mu jógee Maroc ñëw dugg si gaal gi dem yàlla def mu des ba kanam des. waaw ci la ñëwee ñu dégg ay xew-xew si gaal gi ñu ne mbéy gi ñàkk na bakkanam mais mënuma ko gëm may topp loolu maanaam Daouda Ndiaye ak Pape Ndaw ak Alsaan ak Njàmbe ak Kunta ñuy topp di gëstu lool di gëstu lool ba am si lu nu leer ne mbéy gi faatu na ak sunu benn rakk mbaya ak suma ñaari jarbaat sii seen xew-xew bi daal nii na dale suñu kaw mu nekk lu métti lool. paa bi bi mu ko yëgee ma ñëw annoncé ko parce que kër gi maa ko fi njëkk a yëg bi ma ko fi yëgee waxuma kenn dara dama toog di xool ba xam ndax loolu dëgg la wala dëgg mais man bi ma wóoree ne loolu dëgg la ci laa ñëw si paa bi waxtaan ak moom dalal xel mi mais moom am na lu ko métti trop trop trop si Mbaye parce que bi nu mujjee toog réunion ma moom la Mbaye Gueye ak suma grand frère bu ñuy wax Zal noo toog di réunion mais Mbaye man bi ma ko xoolee dama xam ne kii nekkul quoi. nekkul franchement kii nekkul mais ndekete yoo lii la doon tàggoo mais ñoom yàlla na yàlla xare àjjana ñu si faatu ñëpp yàlla na yàlla xare àjjana yàlla na yàlla jégal man am naa si moom yaakaar parce que suñu papa tàggat nañu si julli a jaamu yàlla a joxe ñun suñu papa Baye Ibra tàggat nañu si loolu moo tax man awma lu ma tiit si moom ñu ñaanal ko yàlla ak ñi mu àndaloon ñëpp yàlla xaraña àjjana Seydina Muhammad teeruñu parce que lu yàlla def moo gën. léegi moom ani soxna si ak doom waaw soxna si fi mu euh, toll nii biñ ko muuree si la dem seen kër quoi xam naa foog lay téññee quoi seen kër si ginnaaw la nii fa lay dem xam nga mooy loolu quoi. kon ñu xuus dugg ci biir. voilà mbokki téléspectateurs yi ñu ngi ne si nañu kër ñoom Mbaye Guèye fi nga xamante ne fëlatis yu amee ñoom itam kenn ci seeni doom ñàkk ba kenam ñu ngi toog ak ñu ngi lay nuyu di la masaw li mm-hmm. ngi lay fay maa ngi lay kenn koo xamante dafa ñàkk ba nan nga yëgee xew bi dal ci kaw ah xew-xew bi de xanaa diis yëgunu dara ñu ngi toog rek xaar téléphone yëgunu dara magam ji daal xam na si dara moom leen ameen leen la laaj rek laaj leen kaka moom xam na si dara man yëguma dara yëguma dara moom jot nañu waxtaan ak moom ba mu xamal ñu ne sax ne mbay dafa nekkoon Maroc ba ñëwoon julli si eh, ban kàddu nga mujjee wax ak moom léegi kàddu gi ma mujjee wax moom daal moo la yaay mu ne mu ne gars yi de pare naña man ne yow fan nga pare kan kan ngay àndal mu ne Lamine ñoom Lamine Gaye ñoo préparé nee na Mbaye ñëwal moom laa war a àndal ne ko ah Mbaye sa dem tiis na de diis na de teel nga ah, teel nga jóg de léegi nga ñëw yaa ngee dem amu fi sax semaine ñaan yaay bàyyi rek ñaanal ma léegi dimanche si fajar altine si fajar nu eewu ma papaam nu war a dem jàkk ja julli nu ko ma egsi rek daje moom paa bi ne ma taxawal ma taxaw ñu taxaw tàllal sa loxo yi ñu ñaanal ka ñu ko ñaanalee diggante bi rek may tànk dam ma ma si suuf gurup mu ekkati ma ne ma yaay mu ñor rek da nga ñaanal ma ma ne yaa ma nga dem a jàmm ñëw a jàmm fekk na tere na ma ko ba sonn léegi mënatu ma si dara ko boo ko teree gaal ya mu war a àndal ñooña dem ba egg mu ne ma yaay gis naa lii la ma la waxoon ma ne ko mbay bokku la sa mbay bokku la si waaye nag bu mu jël demee Maroc ba yàgg fa ba ñëw rek la loolu ñëw sob boobu ñëw rek dem bi taxaw si moom rek dem bi taxaw si moom rek ah léegi mënatuma si dara ma ne ko mbay de yal na yàlla teg si yoonu jàmm mënatuma laa tere yal na yàlla teg si yoonu jàmm nu ñaanal ko mu daal di génn dem nu nu génn dem jàkke ja ma ne nu nekk ab diir toog ñaari fan ñetti fan ma ne dégguñu téléphone de ay ñii yàlla nañu dégg jàmm yëguñu si dara ba ma xëyee maa ngi ubbi tale bi rek la seetaan la xool ba ñu ne gaal ga Angleterre Maroc dara foofu daana ñu ne léegi ma dégg ñu naan gaal gi dinañu indi ñi indi di daal laa si am lii laa si am xibaar bi daal di ñëw lii laa si am xale ba baax. xale bu baax yal nañu xippee àjjana amin amin Cheikh gis nga ko noonu mu nekk loo xam ne lu émouvant la gannaaw yaay ji seede yi nga xam ne moom la def si bi doomam di dem ndax xam xale dañuy faral bu benn demee ba ba ba jàll ñoom itam kut kut dañuy bëgg a dem ndeysaan gis ngeen ko noonu waaye loolu la yàlla dogal si moom ñu koy ñaanal moom itam yàlla oyofal suuf si kawam bu baax a baax ñu wéy la rek ànd ak daaw da ba tey mu yóbbuwaat ñu feneen foo xamante ne xew-xew na fa waaw ah, Daouda ba tey ñu ngi waat euh, biir Tëngéej rek fii mooy fan. waaw ah, fii mooy Cissé euh, fii la Moustapha Cissé dëkk ak euh, Cheikh Cissé ñoom it ñaar lay si juróom-benn ñi ñàkk seen bakkan si Thiawlène fii lañ dëkk nii. kon kër gi ñoom ñaari ñaar ñoo ñàkk seen. waaw ah, deux décès moo fi am kër gi moom am na ñaari dese waaw muy Moustapha Cissé boobu ak seex Cissé. d'accord kon ñu daal di xuus dugg si biir. voilà sëñ bi ñu ngi lay nuyu. waaw ñu lay fay soxna si. fi ñu daaw day indi nee ñaari nit ñoo fi ñàkk seen bakken yow lan nga si ñoom. effectivement euh, wax na dëgg ñaari nit ñoo fi ñàkk seen bakken man papa laa si ñoom quoi parce que ñoom ñaar ñëpp seen i seen i papa su may mag lañ. nan ngay xew-xew bi dal seen kaw. waaw ay rumeur d'abord comme ni ko ñëpp yéegee fii si dëkk bi euh, parce que ñi fi demoon yéegoon si gaal gi dafa bari par la suite si lañ jot ay message de confirmation ay audio quoi WhatsApp. Euh, Moustapha ñaata at la amoon moom. Moustapha 32 ans lay lay war am parce que maax moom ñoo ñoo maase ñoo bokk sax d'ailleurs euh, jour bu ñu judd. maax moom la ah. mhm. amoon na soxna wala. si si si si amoon na soxna bàyyi na fi bant aussi tamit. Cheikh tamit. Cheikh euh, waaw moo ñu mag tuuti rek 35 ans yooyu si lay war a toll. donc moom jotul woon am soxna quoi. mu nekk lu métti lool. kon ñu fa yéene dugg rek si biir xool njaboot. voilà yegsi leen. mbokki téléspectateurs yi ñu ngi fii nga xam ne mooy que ñoom Cheikh Cissé comme ni ñu ko waxee léegi rek si buntu bi nga xam ne ñoom ñaar la ñu ñàkk sëñ bi ñu ngi lay nuyu. ziar la ñu ngi leen di fay. ñu ñëw fii tey seen kër ngeen ñàkk ñaar si seen ay doom nan nga yëgee xew-xew bi. waaw xew-xew bi lu doy waar la dañ ko yëgee si cadre tristesse muy tamit aussi lu ñu bett ak lu ñu jëlee kaw. ndax xale yi bi ñu fi jógee ba bi ñuy dem muy lundi semaine tabaski boobu donc daanaka demoon nañ bu dugg si fukki fan ak ñett bay laal ñaari semaine amuñu woon si ñoom ay nouvelles te yàlla suñu borom bi def euh, mat na juróomi fan si la ñuy doog a jot information muy lu ñu bett tamit aussi comme quoi que am na ñu si génne àddina ñu si génne àddina nag kër gi nga xamante ne nii fii ngeen ñëw kenn ki man ak papam ñoo bokk benn baay daanaka mooy taaw papam dafa gaañu. ngoon man maa fi des ak samay rakk si kër gi ak ñoom ba yàlla suñu borom bi def li nga xamante ni moo gën ci kër gi ngeen dugg tamit aussi am nañ fi sama beneen doom baay boo xam ne aussi doomam si la bokk ngoon génn kër gi ñaar ñoo fi génne àddina mu nekk lu metti kon dem nañu lu mat fukki fan ak ñaar te amuleen benn nouvelle si waaw daanaka dem nañu lu yàgg sax daanaka ba ñuy dem sax ñun yëguñu ko woon xam nga xale yi rek bu ñu xësee bay dem kenn leen mën a téye xamal ne ko nañ leen ñaanal yàlla comme dem nañu te ba ñuy dem tàggoo ñu nañ leen ñaanal yàlla suñu borom ñu demee nag toog nañ daana ko daal ba fukki fan ak lu teg si la ñuy doog a yëg ne ne gaal gi dafa yàqu ñoom ñoo ñu nekk euh, Maroc di commencé yónnee ay ojo di wax ne daal am na ñu génne àddina wax ko tamit aussi kilifa yi nga xamante ñoo nekk si réew mi donc ñun aussi ñu wax ñu ko donc ñu gëm si yàlla loolu daal muy lu métti bi aussi waaye dañ koy sant yàlla suñu borom bi ñu ngi leen di masawu toog kenn koo xam ne nag waajur la si ku ñàkk bakkanam muy papay Moustapha Cissé Moustapha euh, Cissé waaw ak maamam ñu ngi leen di masawu baax a baax euh, maam booy ñu ngi leen ma ngi leen di fay yow yaa ñàkk sa chéri waaw maa ko ñàkk de doom ju baax nan nga yëgee xew-xew bi dal suñu kaw xam nga maam ak sët moom dañoo jegeyoo lool lool lool macha allah waaye nga ñaanal ko rek eh, sànni si benn kàddu. xanaa amiti rek si man jenn doom la woon si man yu am njariñ yu nangoo daan doole liggéey rek jaamu yàlla jàpp julli amulaa kenn problème si àddina lépp am kapaaree la ah ponk waajur Moustapha yal na ko yàlla xare àjjinay firdawsi yal na rëcc lu mu fi doon def si àddinaam Moustapha yàlla mi am àjjanaam yal na ko ci dugg moo yëram baayam moo fonk baayam lu mu am rek si kër gi ñu ngoo liggéey jàmbaari ay xamoon ne sax dem dafa ne rek

ay Moustapha bu mu ko yëgoon de du dem Mauritanie ne portable yaa ngi fii waaye ma toog ba benn guddi rek ma gis gaal gi mu nekk lëndëm këriis ma xëy saraxe nekk Moustapha de dem na waaye sama xel dalu li ma gis dafa lëndëm torop di daal di génn ay sarax ma xool ko ñu te ma ay sarax ma génn sarax yi waaye ba mu demee la sama xel ñàkk a dal daana dem maare nag waaye ba ma ko teree maare bi dafa continuer di liggéeyam liggéeyam fii Moustapha Siis moo ma bëgg moo ma fonk moo fonk bàyyi moo respecté doomu aadama moo joxe cër moo am ab yar moo am lislaam moo nangoo liggéey yàlla na ko yàlla xare àjjana fi daw am mboolem kum fa àndandal tey jii yàlla nañu ewoo iliyin barke Seydina Muhammad noonu dégg ngeen maam ji li wax ñu daal di continuer ak euh, ki nga xam ne waajur la si Moustapha Ciss muy waajuram bu góor papa ñu ngi lay nuyu di la maa ngi leen di ziar ngeen baal ma ak ci ñëw bi ndaxte mbir mi mbetteel la mën nag bu sama kilifa waxee daanaka mën naa ci bañ a sori waaw waaye dama jël lépp wekk ko ci loxo yàlla ak yonent bi waaw yàlla ku mu namm lu mu namm def lu mu namm jël du jaas nit mënul xëccoog borom bi moo ñu sàkk nag ñuy ñaan mustafa ak ñi nga xamante ne ñoom la seexal mbir mi ñu ci dëddu génn àdduna yal na leen yàlla xare aljana ñi ci am tolof tolof te dund yal na leen yàlla suñu borom bi delloo ca ci jàmm yàlla lii yàlla na fi géej yàlla na fi géej Moustapha nag moom ci jëmmi boppam ah, dama jël léppam jox ko samay rakk ak samay mag waaw ah mu doon xale boo xamante ne bi déggal nañu ñu di ko ci ñaanal bu baax jàmm yàlla gu mat aussi mu ngi ci moom dafa xamul caaxaan xamul dox loo xamante ne lii lu ko nit di yabe la wala lu ko nit di ñooroo gisuma ko ci moom waaw cëral na rek nit ñi muy dëkkandoo yi muy mbokk yi ku mu ci mën a doon ko boo waxee baat bi benn la lool doy nag sant yàlla lu mu am nag bokk na ko ak nit ñi waaw loolu daal moom ci jëmi boppam seedeel naa ko ma di ko ñaanal yàlla bu ñu reccu safaan wi am ni dal ci seen kaw yàlla bu ci reccu am waaw jami rasulullah sama mag yi ak sama rakk yi maa ngi leen di ñaanal bu baax ñu ngi leen di jaajëf lu baax a baax ñoom waa Kër Cissé bi ñu ñëwoon que ñoom Moustapha Cissé ak Cheikh Cissé voilà mbokki téléspectateurs yi gis ngeen tey suñu émission xew-xew fi nga xamante ne moom lañu ñëwoon fi si Thiawlène nga xam ne dañu ñàkk seen juróom benni doom yoo xamante ne dañu desoon si gaal gi ki nga xam ne moom la ñu àndaloon nag muy Daouda Ndiaye Ndoye moom nga xam ne bi ñu ñëwee Tëngéej ba léegi soo ba léegi dafa dagg ay téeméer ànd ñu fépp foo xamante ne ni fa nit nekkoon te ñàkk bakkanam benn kër rek la demul mooy kër gi nga xamante ne ñoom jotaguñu seen néew ñoom rek la yàlla def ñoom la ñu gis seen néew te yëg seegul moo tax comme dëjëguñu moo waral tax ñu yem si juróomi kër yi daaw ñu ngi lay jaajëfal ñaata personne ñoo nekkoon si gaal gi bi ñuy départ ñëpp tëngéej la ñu dëkk am na ay blessé am na ay rescapé am na lan moo si des. waaw waaw gaal gi en tout d'après écho yi ñu am si ñi nga xam ne ñi ko doon doxal. ak xale yi nekk si hôpital bi parce que boo xoolee ñaari ñaari pàcc la am na pàcc boo xam ne ñoom si camp bi lañ ne. ñooñu mooy ñi nga xam ne li eh, amuñu benn gaañu gaañu wala ay gaañu gaañu mineur lañ am ñoo ñi nekk dax la ñeneen dañ nekk si camp bi ñeneen ñi nekk au niveau de l'hôpital en tout ñi nekk bu gaal gi di teer son ñoo teer voire 48 si 48 yooyu la ki nga doon wax noonu muy suñu frère Lamine Diop ñu gën ko xam si Lamine Lamine Fall la tudd mais Lamine Diop lañ koy woowee si quartier bi mhm. kooku la kooram moom hôpital la wàccee léegi nag maintenant maire bi jël na toutes les dispositions dem bi ñu fa demee sax wax na ko ba ne wax na ko famille bi kooku kooram day ñëw ñu répatrier ko boo xoolee ñi nga wax fii Sisi mhm. kooku rek moo defagul dëjëm mu dëkk Ngomeen léegi gaal gi li nga wax 65 la ñuy wax ñii ne 67 léegi ñun nag bu ñuy jël dans nos bases on prend 65 bi gën a ndaw pour bañ a juum parce que dans 67 il y a 65 d' ñu jël 65 léegi 48 ñoo wàcc foofu 48 yi 47 ñoo si dund actuellement donc boo xoolee 47 47 65 47 18 18 morts la et on a pu identifier à à travers nos recoupements 13 personnes yi moom c' est identifié leen moo si am 6 am ñu dëkk Colobane ñu dëkk Ara léegi parmi les blessés euh, dernier écho yi ñu amoon avant-hier on avait quatorze blessés yoo xam ne foofu lañ nekkoon nekk si gaal gi. neuf yi ñoo dëkk Tëngéej si neuf yooyu deux moo dëkk Thiawlène euh, quatre Guy Mouride Euh, trois yi dëkk Arafat muy neuf. donc ñoom ñëpp tëngeej lañu dëkk. ñoom ñëpp tëngeej mais kat boo déggee ma ne la woon quatorze lañ. voilà avant nag tamit dafa am benn booy boo xam ne ne dafa amee taab. ñu indi ko foofu ci dëkk bi la dëkk muy nu Diagne jot naa diggante yaayam ba dalal xelu yaayam mu ngi foofu noonu loolu moo def ñu doon dix euh, trois ci quartier bi. Mm-hmm. Euh, mu en tout douze ak beneen booy bu dëkk cité filao ak ku dëkk Mbour ñun li ñuy travail actuellement mooy ñi dëkk Tëngéej comment faire avec suñuy essence pon kooku li la waxoon les mairies et te yi ak ñi nga xam ne ñoo dëkk Sénégal parce que yëgal nañ ko autorité centrale yi ñoom ñu ngi siy def li ñu wax parce que ñu ngi jéem seen la yëgal nañ ko tamit autorité municipale yi ñoom it ñu ngi siy bay seen waar. d'accord léegi man su ma déggee gaal gi kon ñu si ëppoon waa Tëngéej lañu. waaw ah, bien sûr gaal gi waaw gaal gi waa Tëngéej ñoo si ëpp. fan la départ gaal gi. bon d'après écho yi Mbour la départ. Mbour la départ Mbour. léegi kon au total 65 personne yu ñu jàpp genn wàll gi yëpp tëngéej te ñu dëkk. waaw bien sûr voilà waaw yu différent waaw yu différent yéen ñi nga xam ne ba léegi nag seen yéen a ngi taxaw di di di di euh, saytu lépp loo xamante ne am na si yëf yow mi nga xam ne bi ma ñëwee ba léegi yow laa àndal lan ngeen di ban appel ngeen di lancé seen yeneen moroomu yi aussi nga xamante ne tamit comme ni ñu koy faral di waxee Barça wala Barsaq ñi si ëpp dañuy dem Barsaq duñu àgg Barça mu nekk loo xam ne lu métti lool lool. waaw li ñuy appelé jeunes yi rek le rêve c'est Barça parce que Barça ñun ñëpp xam nañ ko tout le monde rêve la si ñoom l'immigration aussi rêve la si ñëpp peut-être nag euh, part yi man damay wax chaque jour part yi c'est c'est c'est c'est partagé amaana ñun ñuy taxaw nii sax on rêve de d'immigration donc am na loo xam ne bu ñuy wax jeunes yi dañuy jéem a pousser leen à ce qu'ils passent par la l'immigration normale jéem a jaar ci voie normale yi malgré voie normale yi difficile na aussi tamit ñuy appeler autorités yi su fekkee ne benn flot dafa am nga bëgg ko kase da ngay dem ci ndaw yi nga jéem leen parce que tey jii nii Euh, Moustapha Cissé ku mel ni moom ku mel ni Mbaye Guèye bàyyi fi soxnaam dem tukki loolu neexul ba pare tey jii sax boo yeggee temps ba nga war a def sa soxna xaar la fi loolu dafa métti ma nag bu fekkee ne amoon nañ benn peu d'espoir peut-être loolu di am may woo ndaw yi ñëpp suñuy moroom ñu ñëpp ñu redoubler defor gëm gëm yàlla gëm lépp xam ne ku si nekk nag euh, sa destin dina ñëw incha allah dañuy ñaan mu doon destin boo xam ne dina dina jeexe si ni mu gën a rafete si ni mu gën a baaxee jërëjëf da ngeen ko noonu moom Daouda Ndoye tabarkalla macha allah bi ma ñëwee ba léegi vraiment mu ànd ak man si liggéey bi bàyyi ay yitteem yëpp dugg man fépp foo xamante ne rek euh, amoon na ku fa ñàkk bakkanam fi si Thiawlène ñu dugg fa mu ànd ak ñun dem nañu si juróomi kër yëpp juróom benneelu kër gi nag moom mi nga xamante ne jotuñoo gis euh, jot nañoo gis néewam ndax moom rek lañ gisagum néewam mais comme yegg seegul dëjëguñu moo tax àgguñu fa ñu ngi leen di massaw ñoom itam di jaale bu baax a baax a baax di ñaa di ñaaxaat rek suñu moroom yi nga xamante ne ñoo nekk senegal dañuy faral di wax ne booy wax nit toogal da nga koy teg si dara waaye yal na yàlla yombal lépp ba kenn ku si nekk booy dem rek nga dem si voie bu normal bi àgg si jàmm waaye xam nga ne nga bàyyi fi sa soxna bàyyi fi sa doom bu ndaw a ndaw dem yàlla def nga ñàkk sa bakken ak ki nekkoon Maroc aussi a a baax di ñaaxaat suñu a baax ndax jamono ji géej gi dafa yëngatu te yoon rendez-vous allah mardi lay doonaat 14h30 si biir émission xew-xew jaajëfal Cheikh bu baax baax a baax ak paalo mi nga xam ne oto bi